moi bénédiction parce que je pense que bénédiction euh, beaucoup de pays sont présents qui euh, li nga xamante moom mooy li wër donc l'eau euh, c'est vraiment le xamante dañ ko dañ ko santé suñu borom maintenant l'attente a été longue xaar bi mais finalement on a vu euh, que commencer l'exploitation exploitation bi le premier baril a été exploité en tout cas qui li nga xamante il profiter de l'occasion pour montrer qu'il n'y a pas euh, qu'à Sangomar nugis, pétrole donc ci communiqué déjà nous mais seulement on a commencé exploitation de oui bien sûr Ben avancée la l'économie du Sénégal mais est-ce que ça va se sentir immédiatement loolu il faut que ñu xamné mënul nek ñu exploiter rek comme ni ko Birahim waxee ëllëg ñu japp né ku nek dafa war yor dara ci posam donc loolu il faut impérativement encore une fois que les gouvernants puissent euh, que le gouvernement puisse davantage communiquer par rapport à cette situation avant que askan wi ci sen bopp ñenn ñi nga xamante ne xëy na nañu euh, ñu def ab fay wala xeyna na nañu mbir xew rek ba commencé yëkkat jóg gouvernement bi gouvernement bi ñom ñu prendre le devant sur ça et communiquer par rapport à cette situation par rapport justement au profit bi nga xamantene Sénégal ñu ko xaar ci lu jëm ci pétrole benen beneen bi ma bëggoon wax moy avant que le président Macky Sall puisse quitter bon fateliko ko dafa am ben ndaje bo xamantene defon nañu ko ñu Sénégal duggal nañu ko ci le cercle cercle euh, le cercle restreint des pays nga xamantene dañuy exploiter euh, lu jëm ci walum pétrole loolu nekkoon lo xamante lu am solo la ñu waxoon sax ni c'est la Mauritanie que le Sénégal mën intégrer li nga xam moy moy ce cercle là vu li nga xamante partager nañu ko ak euh, li nga xam moy Mauritanie euh, je pense que GP xawma ma ay niñ bi ci ci ci ci bi déjà bobu amna ben benn avancée bu am solo bo xamantene noté nañu ko parce que récemment Petrosen ñu ngi doon communiquer sur ça donner des informations comme quoi que né li nga xamantene moom mooy ngaal bu njëkk bi wara ñëw pour ñu commencer exploitation wala ñu commencer tek les premiers pas pour jëm ci li nga xamantene moom mooy exploitation bi yegg na et que installer nañu ko on a commencé à travailler donc lolu nek benen bir bo xamantene encore une fois ça revient sur li nga xam moy mooy liggéey bi ñuy def et que Petrosen commencé dit communiquer à information de les Sénégalais et tout le monde déjà signaler le plus souvent a pétrole soit le pétrole est une bénédiction pour ce pays soit le tout contraire j'espère que et j'ose espérer que dafay nekk li nga xam ne mooy bénédiction ci biir réew bu Sénégal parce que soxla nañu ko pour soulager suñu koom-koom soxla nañu ko encore une fois pour li nga xam ne mooy jëm ci wàllum économie assise bi ñu ci bëgg a am et maintenant nag lan mooy tax mu jur safaan ga loolu mooy kàddu yi nga xamante ne Alioune Tine mu ngi koy wax léegi di la stabilité du pays bi nga tout en chacun ci jamono ji ñu nekk ci part de responsabilité aussi bien les Sénégalais mais aussi bien li nga xamante ne ñoo nekk euh, ci gouvernement bi euh, responsabilité biñ ci am pour justement euh, peut-être pouvoir Madame, fédérer tout en chacun bo xamante ne mu ngi nekk ci biir réewu Sénégal lolu nekk bo xamante ne lu am solo fi may pétrole fi ñu koy exploité dafa am des conséquences yo xamantene da fay am ci walum nature bi ci walum environnement bi ak yi ñoom alors bo Sangomar fi mu nek nga xol donc li nga xamantene mom moko wër le plus souvent da ngay xol c'est presque des presque donc mu nek ay diwaan yo xamantene ne li ñu yaakaar mooy l'élevage l'agriculture mais aussi la pêche légui est-ce que ils ont déjà pris les devants pour buñu commencer exploitation pétrole bobu li nga xamantene inconvénient la wara jëm ci environnement bi dégradation de l'environnement ak ñom sen ak ñom sen est-ce que déjà les gouvernements ou gouvernants jël nañu li nga xamanteni les devants pour lu jëm ci euh, conséquences yi nga xamanteni war na ko am dans la nature lolu nek lo xamanteni question là que je me pose euh, par rapport à ñi nga xamante ne ñoo dégg parce qu'il faut le dire euh, je tout à en tout cas aux côtés de de Sangomar Fimnek. donc boo Joffior Fimla, d'un côté Palmarin entre tu pars vers vers Sangomar Fimnek. donc est-ce que dans le cadre de l'environnement est-ce que dans le cadre des conséquences yi nga euh, exploitation pétrole am est-ce que les le gouvernement a déjà pris les devants ça c'est des questions que je et que j'aimerais avoir des réponses par rapport à li nga xamante moom xew ci ni D'accord Sénégal di producteur beaucoup de produits yi